le le premier ministre du woon sama xarit woon sama xarit de déedéet. moins pour le Sénégal maintenant li ni ñi xaar nag au delà de de de li ñuy wax nii bu dee opposition bi man dem leen di sant te ku ci ci ñoom na xam ne lu muy wax maa ngi koy dégg xam lan moo tax parce que gëm naa ne même ñiy wax sax pour opposer wu kese bés dina ñëw ñu wax loo xamante ne dëgg la ak njëriñ la. te bu boba dama koy jël doxal ko pour njëriñu sen njëriñu askanu Sénégal mais bu dee seen agenda nag mooy ñoom ñaar tôt ou tard dañu am problème ñaar ñi ànd di am problème que mu nekk jëkkër rek jabar mag ak rak papa ak doom yaay ak doom xarit seytaane fu ne lay dugg mais dina raconter rek une petite anecdote man le le premier ministre du woon sama xarit ah du woon sama xarit de mais avant ñuy génn kaso bu ñu commencé may ñu pour ñu togg ci lañ situation ñi di ne def rek wax wax en tout cas ñi compté par exemple pour pour pour pour pour pour ma ma gis sama ñu suis pas comme ça je quelqu'un de très lucide de très froid et de très humble kenn mënul di wax président premier ministre daf lay def de l'ombre nangam daf lay def parce que nekkoon na sous son nom te tey maa ko te nangu na ko kon loolu c'est pas un problème maintenant mu des lan mooy est nit mën na dem wax fee nit dem wax fee est-ce nañ non du ñu réeroo parce que dañuy waxtaan tout le temps